asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi siyaare ñëpp di balo ak ñëpp di balu ak ñëpp ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy murum jéggal te yërmande ak yërmande mu boole nu jéggal te boole nu yërëm te lépp loo xam ne mooy yiw ak xéewal goo xam ne ko ci weer wu tedd wi mu boole nu ci ëpp li loolu suñu borom mën na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ba tey tey moom dañoo ñëw ngir ñu jàngataat lenn ci ndigal yi nga xam ne moom lañ fi jota andi ñu xool yan la ci sëñ Touba gën a soññee waxtu wu nekk nga xam ne saa yow ndigal loo dégg rek daanaka da gis ne am na ay baat yoo xam ne moom dana ko ci faral di tudd loola nag nga xam ne kon lu ko itteel la lu bëgg ñu bàyyi xel la loolee nag lañ bëgg seetlu ci biir wax yi liñ fi jot wax lépp li nga xam ne gis nañ ne saa waxtu wu ne dana koy bàyyi xel mooy ndigal yi ak tere yi loolu moom daanaka ndigal maanaam dénkaane bu ñëw bu ne digle na ci danañ topp ndigal yi tey mooy tutare yi bokk na ci itam li nga xam ne danañ ko seetlu ci ndigal yi nga xam ne daan dana koy digle lu bari na lu muy wax yéene aw yiw maanaam yéene yiw loolu ba tey li ñu xamal mooy kon bëgg na jàmm di xew ci diggante jullit ñi ak diggante doomu aadama yëpp jàmm doon li ko lu ko itteeloon ndax waxtu wu ne day bëgg ñu ñu nekk ñu yor ñuy ñuy doon ñoo xam ne dañuy yéene aw yiw buñ seetloo itam dañu gis ne bokk na ci yi nga xam ne itam itteel na ko muy tooñ doomu adama bëggul kenn ku tooñ kenn ndax tooñ xam ne wax waxtu wu ne danañu wax li muy jur ne day li muy jur mooy li nga day yoroon ci lu baax suñu boroom da koy jël jox ko ki nga tooñ walla bu fekkee yàlla dogal na ab safaana fa nekk itam mu jël ab safaanam jox la loolu lépp ñu daal di xam ne kon bokk na ci li ko itteel tam bëgg ñu bàyyi ko xel waxtu wu nekk nga xam ne nekkaay luñ gis lu danañ ci gis ci yooyu moom yooyu màndarga moom dana ci bari lool muy topp ndigal yi moytu tere yi yéene nit ñi aw jàmm jàmm boole ci itam bëggal leen jàmm boole ci itam bañ a tooñ kenn kon loolu yaakaar naa ne doon na yoo xam ne danañ ko jàngate ci yi nga xam ne moom la fi sëñ bi moom lañ jot a tudd moom lañ fa jot a jaarale ci yi nga xam ne mooy ndénkaan yi nga xam ne moom la doon dénkaane bokk na ci yi nga xam ne itam gis nañ ne dana ko ci doole na ko ci bëgg na ak dimbalante ci diggante jullit ñi ak doomu aadama yëpp kenn ku ne la nga mënee sa morom wala la nga ko mën a jàppalee nga defal ko ko kon yooyu gis nañ ne maanaam boo seetloo léppam dafa jàmm rek la yéene doomu aadama yi jàmm rek la leen bëggal li mu bëgg itam mooy ëllëg ñu dajeeg suñ borom te bu ñuy dajeeg suñ borom itam fekk ñu nekk ci li war a nekk muy bàyyi tere yi nekk ci ndigal yi yooyu nag yaakaar naa bu fekkee ne tënk nañ ko téye ko danañ gis doxiinu sëñ Tuubaa moo doonoon lan ak fan la jëmale woon nit ñi kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ndax loolu moo woon kan mooy sëñ lan moo lan mooy moo woon itam lan lay bëggoon ci doomu aadama yi moo nuy woon itam fan la jëmale woon nit ñi te yaakaar naa loolu rek mooy li nga xam ne moom lañu war a gën di téye gën di ko jàngat ne xam ne njàngat ndigal lu ñëw lu nekk yooyu sa soññe na ko ca bu baax a baax bàyyil la ko xel itam bu baax a baax kon loolu yaakaar naa ku kenn ku bëgg a jàngat sëñ Tuubaa ku nekk da nga gis ne moom doxinam moo doon lii fii la bëgg la jëmale woon nit ñi lii la bëggoon itam nit ñi doxe ko yàlla nañu suñu borom dimbali nag ba loolu nga xam ne lépp njariñ lay doon ci ñun ndax njariñ lay doon sa digganteeg sa borom njariñ lay doon sa digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoo ngi bokkal nekk ci kaw nekk ci kaw suuf te yooyu rek la la la doon jëmbat ci biir doomu aadama yi muy nañ nañ bàyyi xel seen borom waaye nañuy bàyyi xel itam seen doom mbokki mbokki doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw suuf yoon kon nag yàlla ñu suñu borom dimbali ba li nga xam ñaar yooyu nga xam ne mooy li mat a bàyyi xel ñu di ko bàyyi xel te di ko doxee ci doxin na mu gën a rafete loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah